Yeah! yàlla fay na sëriñ Touba xoolal gaal gañ ko defoon mu jógee Ndakaaru jaar ci géej gi daw sëtam bi jaar ci jaw ji te bato boobee rekk a tax avion bi am nga xool màggal gi lu jot yomb waaye Gabon lañ ko waroon jëkk a ubbee ci ci bitim réew ndax Gabon la Sëriñ Tuubaa ne bu ñu demee ci kanam tuuti danaa la wan montagne sainte bu ñu demee ci kanam tuuti da dem Lambaréné bu ñu demee ci kanam tuuti danga nga dem Mayomba bu ñu demee ci kanam tuuti da nga dem Port Santi Port Santi li sëriñ bi daj poor Santi daju ko fen fen fen fen kon bu ñu demee ba jëmmi jamono Cheikh Sidil Makhtar toog tey Sëriñ tuuba yëkkati magal gi teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Bassir rakkam gi waaye am na ñu nekk Gabon wala ñu nekk France wala ñu nekk Allemagne di murit fa la ñu koy magale waaye dem fekki leen nag ni leen cegeen waaw góor day soññ koy bay moo tax Cheikh Mamadou Bassir jóg àndante waaw àndante ak magam yu baax yi mu àndal yëpp mi ngi àndante ak sëriñ Abdou Samad Mbàkke bu Cheikh sëriñ bu magam mi ngi àndante أكسرين محمد مشيخ عبد الله إلهات خالد ميجي أندنتي أكدوم سيد محمد البشير مسلم مصطفى البشير ميجي أندنتي أكدوم سيد عبد الرحمن كاين فاطمة ميجي أندنتي أكدوم كير حملكي موي سيد بشير خالد ما أبا ميجي أندنتي أكدوم سيد عبد الخدوس ديشة مشيخ عبد الله بيمي سيد شيخ ونام بكي غخور سيد مصطفى جاسر ميجي سيد بيبلتك بيميني أكدلك شوي سيد شامبوسو ميجي سيد فالو بوسو tubaarkalla njabootu sëriñ Tuubaa yi yëpp ànd mu ànd ak ñoom bokk ñoom benn avion te sëñ bi jaar ci ndox mi daw koy at daw ko ay weer noonu nu war ko daw ay waxtu te atam yaa indi waxtu yi moom mooy liggéey mooy sëriñ Tuubaa liggéey bi mu liggéeyal yàlla yàlla nangu na ko fu mu jaar mu dim waaye fu mu wàcc muy njënd Gabon nag dafa bokk ci taarixu murit soo wàccee sa dëkk ba rek boo si gisee asamaan si ak jaww ji ak ndox mi da nga yëg ni fii la sëñ Tuubaa jaar am na foo xam ne fii benn magasin fa la jëkk wàcc ñu nga tuddee magasin ba malayka port ba mu jëkk wàcc foo mu nekkoon dóor suul suul xaalis ba fa la ministre de finances nekk tey fa mu nekkoon di ay armeel fa la jumaa ju mag de nekk tey jumaa ji jumaa ji foo mu nekkoon ca port santi tey fa la jumaa yi sëñ ja nekk teen baa nga fa loolu moo lay wan ni sëñ Bamba daraam duraaf yi nga xamante ni bii eh, ñi ngi koy dem Gabon topp trace Cheikh Ahmed Bamba mu mel ne kon ñi ngi ci avion bi bi ñu déparé ak léegi yaakaar naa fi mu toll tembe war na nañoo weesu bi Bissau war nañoo weesu sax Guinée Conakry eh, ànd ko kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ ko àndal ci njiitu Cheikh Mahamadoul Bachir Serigne Mahmoud al mu Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdou Samad mu Serigne Souhaïbou Eh, sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Moustapha Bachirou eh, sëriñ Abdou Xaar moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Khadim Awa Ba ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp muy sëti sëriñ Touba sëriñ Cheikh Anta mu sëriñ Modou Rokhaya sëriñ sëriñ Falilou Boussa Tamba ak sëriñ Sam Boussa ak sëriñ Moustapha ak doomi Cheikh yi nga xam ne ñoom ñëpp ñi nga àndandoo ak ñun jëm ci dëkk bu sell bee eh, li ma waxoon sànq nag mooy. topp trace Ahmed Bamba day am sens lool ci dem Gabon ndax xam ngeen ne sëriñ bi ginnaaw voyage ginnaaw nelaw sëñ Mbàkke Mor Anta Sali eh, diggante at walla ay weer la def la def la def Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawal ñaari at ëpp ko Daaru Salaam ñeenti at Touba juróomi at jàpp juróom-ñaari at Mbàkke Bari mu daal di ci yoonu géej kon loolu lépp boo ko xooloo amu ci fenn fu def juróomee at yu mat bim demay geej gi man nañ na Gabon rek la defat juroom ñetti at yu manke tuti bim joge Gabon ñewat Murtani ñenti at la fa dem Thiel juroom ñaari at euh, ndiarem fukki at ak juroom kon man nañ ne état bi nga xamne mom la seigne Touba def Gabon ci gëna a ak ndiarem te xetma bi deug deug deug deug seigne Touba mi ngi ko xetma Gabon xam nga xamne fofu mbollem limu li yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci taggu ko ak julli ci mom ak wetal yalla ak jaamu ko gën jaa selli jaamu mën nañ ne ci suufu Gabon la ko sëñ Touba defee kon bu yàlla dogalee ñuy waajal màggalu Touba ca mu waxaloon boppam ne sama dem ji jàkkaarloo nag dellu si ndax ñaari way fawoon di ko jàng toujours mooy xarat fi ma sabti ak lahu taala rujuhi min idaya ila daari salaami lati xam nga moo kii dem ne la maa ngi dem ci bis sàngam ci dat sàngam danaa ñibbisiwaat bi mu daataa ko ñëw mu waxaat ne sama borom xamal na ma danaa delluwaat daaru salaam yeesalaat sama kër gu njëkk ga kon dem gi ak dëkk gi dara leeral dara ump ko ci ci baatab xàlla ma ni rahmaanu fi safina bi mu waxoon mooy yàllaa ma ko xamal ci bi may tàbbi ci géej gi kon xoolal booba bato mooy am ñu koy def sëñ Tuubaa ci géej gi tey ñu ngi topp trajet de Cheikh Ahmed Bamba jël avion jëm jëm nga ba nga xam ne ci ay weer la ko def wala ay fan yu bëree bari yow nga bëgg koo def ci ay waxtoog waxtoog nangam loolu nekk na li mu wax ne sama tey ju ne day gàcceel sama demb day daal di feeñaat ci ab liggéeyam eh, gabon nag ay site yu bari dafa nek yo xamanteni bi bo xolé fu mel mayom ba nga xamne fa juróom na fa juróomi at yenen barab yi nga xamne barab bu ci nek tok na fa jeexital ji def fa mu defal fa seigne Touba lo xamanteni bi ba aduna tukki dutu fay yaakaar ne bu seigne Touba Cheikh Sidiel Mokhtar waxé ne dama bëgg ñuy top trace de Cheikh Ahmed Bamba nga gis ne caravane bi mi ngi jaar ci jéeri ji comité bi jaar ci ci géej gi loolu mooy ya ahla barri ya ahla bahri nga xam ne jéeri ak géej moo am kon yaakaar naa ne boole nañ jéeri ji ak géej gi lépp ngir wooteeb Sëriñ Tuubaa bi mën na feeñ bu baax a baax a baax